kawteef ca Pikine Icotaf lu doy waar moo fa xew ñaari ndaw yu doon werante xeex juddu ci seen diggante seytaane daal di ñëw ba keneen kë yëkkati paaka jam ko morom yi mu faatu ci saase mu nekkoon diggante Abdoulaye Fall ak H Fall ñoom ñaar ñëpp ay gérant lañu woon moom Abdoulaye Fall nag moo ci mujjee faatu amoon ñaar fukki at ak juróom bu ñu sukkandikoo ci li nga xam ne moom moo di boobule xibaar Abdoulaye Fall moom ay mbokkam fësalu ñu ko fal dëkk. waaye ki nga xam ne moo di Aïcha Fall ca caaro yi la dëkk ginnaaw bu mu defee jëf jooju ba noppi rek dafa daal di daw ca mbaaw la ñu ko daal di ah, fekk mujjee nañu ko jàpp ba jamono ji mu ngi ci loxoy takk der yi ba noppi daal dinañu ci ubbi ab enquête ngir ñu mën a xam ah, coow li ana lan moo ko waral Assane Faye mi tuuroon ceeb bi ci teer bi moom ginnaaw bu ñu ko lancé le woon ab cagnotte bu toll ah, ci cinq millions mu mel ni la ñu bëggoon mu doonoon seen objectif amuñu ko un million ak poussière la ñu daal di am ki nga xam ne moom moo di euh, Magdi di humoriste boobu moom moo ko jiite woon yóbbul nañu ko boobule xaalis moom Assane Faye nag mu mel ni euh, nee na dootul jege teer bi ba cay dugg waaye teer bi teerub ñëpp moom am na ci wàll ndax sénégalais la teer bi sax moom dem na ba tuddee ko teeru Assane Faye nee na itam dafay balo ak sénégalais yëpp ak yenn rumeur yi nga xam ne ñu ngi ko ci doon dégg dara amu ci lu waroon am la am na fii la ko yàlla jàppale woon waaye adu lenn loo xam ne rek lu ko soob la lu mu ci doon na def wala ngir lu ñaaw ba tax na daal moom dafay balu ak sénégalais yëpp ngir ñu euh, bal ko ndax dara ñoru ko lu dul ak njabootam ba tax na xaalis boobu nga xam ne moom la ñu ko daal di jox daf koy dem yóbbu ngir nag mën cee defaral ay njabootam fu ñu dëkk waaye ba ca noppee itam wax na benn feebar bu ko dal maanaam feebaru gët gi daloon Baye Fall bu wéri wéri bañ ñu yóbbu ko ca tugal faji ko moom moo dal ki lee di Assane fay ba tax na mu ngi doon sàkk waale ndimbal ci sénégalais yëpp ngir ñu jàppale ko ngir mu mën a faj feebaram boobu ah, di feebaru gët ndax gët mooy nit te amaana dooleem tolluwut noonu wala ay mbokkam seen doole tolluwut noonu moo waxal amaana yu ci bare bare di ko dal ci ak dundam ndax bët yi du gis mbokki xarit yi lii la ñu leen doon dëgtal di ñaan ngeen wéyal ñun di ànd ak ñun ci suñu ay programme abonné activer seeni cloche de mën a am suñu vidéo à réel jaa ngeen